mbokk yi kenkayar yi maam bi barab bii boo fi ak see jàppal ni lépp bi ngeen mën ci bëgg ci wàllu ciment dama ni ciment ba gën am qualité waaye nag bu dee wàllu fer fer bi ñëpp di wër moo ngi fii béton nag moom c'est la meilleure qualité ah waa kenkayar yi maam lamp Fall ñoo leen yembal lépp luy matériel de construction ci wàllu métallique menuiserie ébénisme maçonnerie plomberie électricité mbooleem corps de métier jàppaleen ni

asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi safoo seetaan suñu télévision Rafah TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ñu ñëwaat ak yéen ci seen naafila bis bi tey di suñu fukkeelu guddi ak juróom-ñaar fukki rakka ak ñaar la rakka bu nekk fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñaari yoon qul huwallaahu ñaari yoon ñu baamtu ko fukki rakka ak ñaar la rakka bu nekk fatiha benn yoon inna anzalnaahu ñaari yoon qul huwallaahu ahad ñaari yoon naafile gi nag ñu ngi ko tuxalee ci xoratul ay ni téereb Serigne Souhaïbou Mbacké Xaadimu Rasuul mbokk yi Rafah TV moo leen di ñaanal kooru jàmm ba suba ak jàmm incha allah. ah mbokk yi kenkayer yi maam lamp nekk si route de Darou Mourti jàkkaarloog kër Serigne Sidi Mokhtar wetu station bi barab bii boo fi accès jàppal ni lépp a yemb quantité bi ngeen mën ci bëgg si wàllub ciment dama ni ciment ba gën am qualité waaye nag bu dee wàllub fer fer bi ñëpp di wër moo ngi fii béton nag moom c'est la meilleure qualité ah waa kenkayer yi maam lamp fal ñoo leen yembal lépp luy matériel de construction si wàllub métallique menuiserie ébénisme maçonnerie plomberie